<laughs> président gi noonu nous avons le président Ousmane Sonko qui vient d'opérer euh, une petite euh, visite, ben promenade pour nous bu mu Fini actuellement ci avec son ballon comme nous de le à travers Bour News mais aussi John TV euh, le tour du quartier Il de au niveau de son domicile vous le voyez en capuche donc euh, da malgré qu'ils ont barricadé euh, secteur bi yëpp dañ ko barricadé avec la police ñëw ci euh, fees fi dell macha ah, ak seen ay auto tëj kii yi tëj euh, bunte yeeg yëpp président dafa génn dox comme un citoyen parce que itam la constitution moom moo ko ko permettre il a la liberté et surtout le droit de circuler librement amul dara lu ko ko mën a tere donc mi ngi noonu di jongle tey daal <laughs> président dans le sport la jël le football donc c'est un peu ça le truc de manière très décontractée en capuche le président Ousmane Sonko Mini ngi ah, Sénégal di doxantu waaw waaw Facebook feuse bu Bour News <laughs> moom la passe bal bi noonu donc nous sommes là de manière très décontractée hein, comme président ni muy wax rek waaw vivez soyez heureux donc actuellement loolu la def doxantu na fii nga xamante ni moo di biir cité kër góor gi il a fait le tour euh, du voisinage tranquillement dellu si waat malgré euh, dispositif sécuritaire bu am solo bu fi ne waaye euh, gaa yaa ngi noonu kenn mënu ko tere dem génn na doxantu parce que c'est tout à fait normal en tant que chef en tant que chef de l'opposition amul dara lu ko mën a euh, mu doxantu c'est une liberté c'est aussi un droit constitutionnel et il l'exerce amul dara lu ko mën a tere doxantu fi nga xamante ni moom Sénégal et un peu partout donc c'était le tour du voisinage président moom la doon def donc mën nañ ne Ibrahim Gueye le président doxantu on a fait le tour de cité Kër Modèle mu ah, il a fait un peu sa promenade donc là euh, on va se limiter un peu à ça ah, mu mu dellu ci këram et après incha allah leneen lu ci mënti am après dinañ dellu si waat euh, ñu wax leen ko wala ñu jox leen information boobu di jégalu bu baax ci qualité image yi waaye xam ngeen rek nu mu demee la le président Ousmane Sonko da doon génn di doxantu donc euh, c'était un peu ça euh, là il revient à l'intérieur de la maison il revient waaw mi ngi saafonte ak ay nitam hein, des gens qui sont venus le voir donc c'était un peu ça euh, jot news euh, jotna media média ñoo ngi fi donc bu améliorer leneen lu bess rek inshallah di ngeen ko am en direct sur l'ensemble de nos plateformes